ndeysaan mbokk yi combat baa ngi noonu dox ci diggante ñaari lu zone am lu weex Gamou Gueye ngemboo ngembu lu ñuul na mbokk yi dimanche 6 juin 2021 fii ci arène nationale Thiam production moo ñu fi woo il est 21 heures dox ci diggante soq ak Gamou Gueye mbokk yi moo leen wan ginnaaw moo boot gox bi yëpp ndaysaan di laaleeg xale bi nga xamante ne mooy Gamou Gueye boo ko gisee ni mu toll tem nga jàpp ni Gamou Gueye moo ëpp doole wala soq moo ëpp doole waaye ñaari mbër fi ak laale wu ñu mënoo xam ko ëpp doole mbaa baa ngi noonu bàyyi ji làmb ji te daa neex daa yëngu ba na kii di sox bi mu simee ko kontaan gàmmu gay bi mu simee ko damaa kontaan ndax damaa xam ne combat bi yàgg gi mu yàgg liggéey nañ ci liggéey boo xamante ni nii bi mu simee ko seen i kontaan nañ seen i supporters kontaan nañ amateurs kontaan nañ bàyyi ji li fi mu toll ñoom ñaar ci des bàyyi ñoo ngi xoolante ci biir bët waaye defe naa ne bàyyi ji li li faaw xeex sox gàmmu gay Gamou Gueye ku ko yeb da koo fekk muy nalaw baa ji li làmb ji dina neex moo taxit sox koy xool ci biir bët lewaatoo bi waaye ñoom ñaar mbokk yi soxyantoowuñu bu fete li tàqee gëm naa ne duñ fi guddeel la bàyyi ji li ñoom ñaar ngi noonu sox mbéb na léegi Gamou Gueye taxaw di ko déglu ñoom ñaar ku ci nekk day woo sa morom ci xeex waaye ci bëre la combat bi di mujj Gamou Gueye xale la boo xamante ni nii mu toll doole ji ëpp na noonu soq nii mu toll bëre na mbër biir tëngeej ndax soq bi mu duggee tëngeej bëre ki nga xamante ni mooy doomu dàngu doomu dàngu da ko daan fële ci stade Jom Iba maar mu ñëwaat ne erreur laa defoon ci soq ci gàmm ci doomu dàngu erreur boobu tey dama koy rectifier ci kaw gàmmu gëy gàmmu gëy ni ko gàmm fi la doomu dàngu jaarale man foofu laa lay jaarale soq dina nangu loolu wala du ko nangu mbokk yi dañuy xool ñoom ñaar fan la ñuy mujj ba xam combat dina yomb waaye en tout lu mën a xew mooy ñoo nduroo tegtal bokk nañu sëriñ baa ji li ni ma gisee soq mii daa mel ni soq daa bëgg a dem boo xoolee tànkam boo xoo xoolee moom ci biir bët sax xam ne daa bëgg dem waaye bu demee lan la fay fekk baa ji li ndeysaan ñoom ñaar daal xam naa ni balaa kenn dem danga xeex ndax combat bi du combat boo xamante ne dañ koy sorxo sorxo wala dañ koy yàqamti li tax mooy combat boo xam ne def na ñaari at parce que préparé wu dañ ko ñoom ñaari mbëri six mois avant soq fekk naa ko gambi muy préparation préparation mer ñu ngi xeex dóor mu daanu wala déet daan na ko daan na ko soq daan na gàmmu gay kàbbu la ma sëriñ ba waxoon. loolu lan la nga ma déyoon. la ma sëriñ ba waxoon. nee na soq mooy daan. lan la ma waxoon. soq mooy daan. woo na ma ma déglu mu ne ma lan kan mooy daan. soq mooy daan su ma ko waxoon ñu ne lan. ah ñu ne eh, yàq nga la ma. tax soq daan nag. sama wax tey du bëri. Eh. parce que xam nga lu tax. lu waral loolu. dañ maa war a jox champion yi ma bëre ñoom. Eh, waaw mënut a ñàkk gàkk gàkk. dëgg la mais ñii waruma bëre ak ñoom. ñan nga war a bëreel ñan nga war a bëreel. yaa mën yaa bu doole. Sa Thiès Moussa Ndoye. Oh! c'est oh, champion